aca jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek damay fas yéene saa su nekk ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax acca yaakaar naa nag jëm jii ngeen di gis nag doonatul gan ci biir site bi ndax rawatina xam bi nga xam ne mu ngi koy wasaare ci biir diggante ñaan ak bi kooku mooy sëriñ Babacar Marabu Socé tey nag dinañ waxtaan ci ponk yoo am solo yaatal ci ci xam-xam waaye duñ fa jóge dinañ waxtaan ci xew-xew jamono mu de ci ku jël langue politique bi acca kilifa gi laata may def dara damay bàyyi nga neew mbokk askan bi bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad ibnu abdullah wa ala alihi ak wa miqdaaril azim alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli sang-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuy kilifa diini di nuy kilifa aada yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi si biti réew mi ak ñi nga xam ne ñu ngi si réew ñu ngi am mbégte baax si tey seet si bi nga xam ne seet si ngeen ko pour ñu waxtaanee xam-xam pour ñu waxtaanee faj pour ñu waxtaanee ñaan yàlla pour dimbale doomu aadama yi ndax doomu aadama yi soxla nañ ko wasalaamaaleykum. jërëjëf sëriñ euh, Serigne Babacar Marabu Socé ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaanee. ginnaaw euh, seen set yoo tànd ak ci kontaan bu baax a fas yéene ñoo waxtaan ci juróom benn ponk waaye dañ koy tënk ci ñaan ak paj bi nga xam ne saa su nekk am na loo xam ne seen borom dénk na ko ci mu ci def résultat yi may ayib aja convocation ni kii le 16 mu di président Ousmane Sonko am na loo xam ne gis na ko nag ci mbir mi lii ñuul ci soow mi nag nee na lu ñu war a seppi la loolu lan la war a doon dinañ ci yaatal bu baax a baax acca waaye lii lépp daam foo xam ne foofu laa bëggoon ñu tàmbale mu di mbiram listixaar nga xam ne ñenn ñi sax seet lañ koy wooye waaye ku nekk ak nañ koy defee ñu del siwaat ci alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi santar yàlla bu baax di wax wa amma bi nixmati rabbika fa xaddis yàlla mu ne su leen defalee ay xewal xewal yoo neen ko waxtaanee te yaakaar naa ne mbiri set Euh, lépp luñ si yàlla may rek dañ koy delloo yàlla ñu xam ne yàlla may nañ su rëy waaye damay wax chaque jour rek euh, seet mooy li nga xam ne il faut que nit xam lan mooy seet ndax bëri na ñoo xam ne ñu ngi leen di génnloo ay sarax yoo xam ne ñu ngi koy def te dëgg-dëgg sarax yooyu baaxul si ñoom am na koo xam ne sarax bi mu saraxe ba léegi moo ko tëj te loolu mooy mbir mi nit jël na ay million am jël lu na def si sarax te gisul dara ndax gisuñ ko dañ ko sarax loo xam raw xaanam bëgg ko kon sarax mooy li nga xam ne seet mooy li nga xam ne mooy lépp ndax su baaxee nit ki dana léppam dana baax waaye sarax bu baaxut bi nga xamee ne gisoo ko ba di génn loo ko loo xam ne mbiram bëggul ko dafay indi ay jafe-jafe si moom te seet mooy li nga xam ne fokk nga xam lan mooy tabiya nit nag su xamut ndal nit ki lan mooy bidiwam pour mu ñaanal ko yàlla dafay dafay dafay jafe te damay wax ne mbir mi méttiwut mm-hmm. gis nga mbir mi métti na si ñu rek mm-hmm. waaye damay ne soo soo xamee foo jëm looy def nga mën ko mm-hmm. dëgg-dëgg mbir mi méttiwut ndax alxuraan ba mu ñëwee ñu ne ko yow alxuraan ñëpp la xam daf na ñëpp xamuñ ma ñoo ko ku la bëgg xam ni muy def pour xam la mu ne fas ahlu ala zikri in kuntum laa taxlamun dem leen ngeen seeti ñi ma taxoo su ngeen ma laajee ñi ma xam man alxuraan dëgg-dëgg doo leen réer waaye suñ demee laaj ko xam ne xamul dara si alxuraan dëgg-dëgg mën nañu wax si loo alxuraan loo xam ne nekkul dëgg moo tax alquran mu ne nag ñëpp xamuñ ma kon nag noonu la mbir yi mel soo xamee dëgg-dëgg looy def mm-hmm. mbir yi méttiwut ndax yi doomu adama yi yàlla dafa leen am lu mu leen tënkee mm-hmm. te ku nekk am na biddiw am na tabiya te damay wax ne nit ki il faut nga xam lan may biddiwam mm-hmm. nga mën koo ginnaloo ay sarax nga mën koo faj docteur boo xam ne dafay faj te mënta seet dëgg dëgg dana lor mala maladi bëri kon yaakaar naa sëriñ bu mënta seet dëgg-dëgg dafay làmbatu rek kon jafe-jafe yi nga xam ne nit ñu am problème si àdduna bi mooy ne gistuñ doomu aadama yi moo tax pour ñu wér day nekk problème te am na koo xam ne wax naa ko fi ay yoon li may wax mooy seet laa lay wax li ma lay wax mooy istixaar li wax mooy tabiya li ma lay wax tamit mooy alquran ñun lépp ñu ngi ko tënk si alquran ak sunna duñ wàcc yoon mukk ndax li ñu yàlla sant rek la ñuy def lu ñu xam ne yàlla sant ñu ko duñ ci dugg nisfu elmi laa addari genn wàlla xam danañ ko def luñ mënuñu ne mënuñ ko duñ dugg si loo xam ne lu mënuñ ko te am na doomu aadama boo xam ne soo koy seet te jant bi dugg na te mbiram mbiram bëccëg la doo ko gis am na koo xam boo koy gis seet si bëccëg te guddi la nekk doo gis am na boo koy seet guddi te mbiram bëccëg la waaye am na koo xam ne doo ko gis ay bëccëg guddi am na koo xam ne foog ñaari guddi mat am na doomu aadama boo xam ne foog ñetti guddi mat am na doomu aadama boo xam ne foog juróom-ñaari guddi mat te yooyu yëpp ci fekkee ne lan xamoo lan mooy tabiya mm-hmm. da ngay wër ki ba sonn rek nga ne kii mënu moo gis nga nga tattu ne génne la ko sarax bu ko neex léegi nag soo génnee la lu ko neex mm-hmm. lore yëpp si lay fekk mm-hmm. damay wax ne nañ leen yeewu suñu yeewoo rek fuñ jëm danañ fa àgg waaye suñu yeewu danañ sonn si àll bi te duñ àgg fuñ jëm wasalaam jërëjëf aja ba tax na foofa laay tàbbee yaatal ci beneen poog mu bokk ci nob bi nga xam ne miine nañ la ko bëgg naa ñu yaatal ci bu baax a baax aja nob nag yaakaar naa ni ko ñenn ñi di waxtaane warta doon loo xam ne dafa yomb nob ci bopp alhamdulilah yaa ngi ñuy laaj ci point boo xam ne damay wax ne point bu nit ñu yombal la waaye nob yombut ndax nopp pour nga nopp nit ki jàpp ko il nga xam lan mooy tabee nit ki moo tax nit ñaa ngi ci lekk lu ba sonn duñ gis dara waaye damay wax ne man noob bu fekkee ne xam naa nit ki lan moo ko tax a jóg wallaahi ñetti guddi laa koy liggéey tàggoog moom du ma ci sonn sax damay wax ne mbir mi méttiwut xam su mitee mooy ñu xamut ñoo fi nekk di sonn rek apprenti bi ku mënu oto nga jox ko oto dafay am problème waaye chauffeur bi yàgg oto xam oto dëgg dëgg direction jaaxalu ko kon damay wax ne mbir mi soo xamee méttiwut waaye damay wax ne mooy mbir moo xam ne ci kàttanu yàlla nit ku am soxla wala nga bëgg jigéen wala li nga ci bëgg farata la wala nga nekkoon ci ngoro ñu xeex la fa nga xam ne dañ la bëgg jaay doole ci kàttanu yàlla buñ jëflante yow li nga bëgg dañ la ko def trois guddi trois jours incha allah rabbi nga oo ñu ñu li ñu waxoon gis nañ ko. incha allah. kon loolu am na solo ci ñi nga xam ne dañ koy soxla saa su nekk du doon ko naqaree jot kooku mooy Serigne Babacar di maraab soose aja dama ñëw ci mbiram papier nga xam ne it euh, mën naa ne taw bu góor la ci ñi nga xam ne dañ ci ñaanu ba sonn mais pour ñu gis résultat problème lay doon. waaw alhamdulilah damay wax ne yaa ngi laajaat si beneen point bu am solo mi wàllu kayit këyit nag damay wax ne nit ñi sonn nañ ci lool waaye nag ñun yàlla may nañu si lu bëree bëri. yaakaar naa damay wax ne rek li may wax du mu si nëbbatu képp koo xam ne dangaa soxla kayit wala nga bëgg tukki wala nga nekk si réew kayit tëla lu mu mënta doon si kàttu yàlla soo ñu ooyee bañ xool sa mbiru pare dama lay wax na su fekkee da ngaa bëggoon déposé man la demal nga déposé su fekkoon da ngaa déposé jotoo si man la demal bu àggee ñu jox sa kayit kayit moom yaakaar naa loolu dama koy liggéey loolu moom amul lu mu si taxaw wax naa la mën méttiwut si ñi ñi ñi ko xam mm. métti su ñoom jëlal koo xam ne mënta jiite ajuma nga teg si minbar du wax dara waaye imaam bi xam dara nga teg si bar dëgg-dëgg bu yéeg rek xam ne fu mu war a jar kon yëf yi loolu rek moo yëf nañ tegu mbir mi si yoon te nañ dimbale doomu aadama yi nit ñi sonn nañ mm-hmm. ñu ngi seen mbokk yaa ngi si àll bi sonn dem fu nekk mm-hmm. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne nañ tukkikat nañ leen seede ñu gëm yàlla lañ mm-hmm. xam ne dañaa bàyyi seen ay doom bàyyi seen ay mbokk nekk si àll di dardari dëgg-dëgg ñooñu képp ku njos alal rek war ngaa góorgóorlu yaakaar bi ñu yaakaar si yow su fekkee mën nga ko nga dimbaleen boo mën nga leen mënu nga ko. loolu am solo la aja euh, damay ñëw ci benn feebar bu ñuy wooyee impuissance sexuelle mu di néew kàttan di ngóora loolu itam ñu ngi la koy bàkkee ndax yaa ngi ci am résultat yu màcc ay ñu dellusiwaat ci néew kàttan. alhamdulilah néew kàttan dafa nekk feebar boo xam ne damay wax ne dafa dafa xew si àdduna bi nit ñi xamatuñ lan moo leen koy teg ñi ñu yaakaar liggéey la ñu yaakaar na ngelaw la mm-hmm. ñu yaakaar lekk yi la lu nekk mu ci waaye damay wax ne néew kàttan mm-hmm. kër yi bëri naqari na da gis góor goo xam ne jàmbaara lool ci këram mm-hmm. wallaay waaye problème rek mooy kër ga mënta neex guddi waaye loolu la dinaa si dimbal doomu aadama yi ndax julit julitee mbokkam foog ñu dimbal doomu aadama yi parce que yàlla xam-xamam bi indiw ko fi rek pour pour jafel ko bu fekkoon jafe la ñu bëri duñ ko am daf ko indi pour laay ak biir yàlla mooy maye zalika fadlullah yuti man yasa moom yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko lu ko neex mu ne man yàlla may xool fu ma neex ma def fa lu ma neex am na fii ngëneel nekk kenn yaakaartoon ko waaye yàlla mooy xool fu ko neex mu def ko nit ñi bëggee ak suñu bañee yëpp yàlla def na ko kon damay wax ne wàll néew kattan si kattanu yàlla si fekkee ne nit koo xam ne ngelaw la am na koo xam ne ngelaw la ma ko dugg waaye am na koo xam ne dañ ko def ndax mën nga nekk jigéen xëy takk ñaareel mu ñu dem def la ko am na koo xam ngelaw moo ko def am na koo xam ne feebar bu ko dab la te yooyu yëpp su fekkee na nag dangaa dem oo ni koo xam ne xamul yooyu yëpp lan moo la dal mm-hmm. nga ne ko dama am problème néew kàttan rek mu jël garab jox la mm-hmm. da ngay faj ba sonn doo wér wala mujj sax gàllankoor moo lay fekk loolu mm-hmm. kon nañ xam nit ñi seen feebar lan la waaye wàllu néew kàttan daal ci kàttanu yàlla li lay wax mooy li yàlla mayoon bu ko nanguut ku képp koo xam ne judduwaale woo ko boo ñëwee ma faj ko incha allah. acca soo ñëwee ma faj ko du fekkee ne judduwaale woo ko mu di kàddu yi sëñ Babacar daaneele loolu am na solo acca dama ñëw ci kaaraange kaaraange nag mën naa ne ku ko doon wut. am amagoo ko de mën nga wuti ko wala ku ko am it mën ngaa gën a renforcer bu baax a baax ndax doon na lu am solo ci jamono ji ñu tolluwaat aar sa bopp kaaraange. alhamdulilah damay wax ne al wiqaaya xayrun ilaaj mm-hmm. na ñëpp fagul gis nga jamono toll na foo xam ne. koo xam ne yàlla dim ngay doomu aadama wala nga am ay doom wala nga am ay mbokk war ngaa tiit na ñëpp uti kaaraange Sénégal gii képp ku fi yeewoo te amoo kaaraange dama la boo yeewal yeewu naa rek waaye doo xam looy fanaanoo mbir mi yàqu na te at mi ngi dugg nii fuñ jëm nii ñaa ngi sànni ay liggéey si sa réew mi te képp ku oyof bopp liggéeyoo si sa ko daanu danaa xamoon ne léeg-léeg léeg-léeg ni liggéey dal ni nga foog ne ni nga moo ko def fekk na liggéey bu ñu sànnaw nii la mu waaye li lekkat sax mu dal la mooy amoo kaaraange soo ñagoon sa bopp du fa dool dal kon nañ fexe ñi ñagi seen bopp képp ku am doom na nga fexe nga jug ñag sa doom ndax yàlla moo ne yowmal xiyaama ku nekk naa la laaj noo sàmmewoon sa ay njaboot kon nañ fexe ba suñ doom yi ñu jox ne buñ sànni doom yi si mbedd nañ leen yeewu ndax yeewu rek moo ñu dimbale bu ñu àgg fu ñu jëm. noot noot bi ñuy noot. nañ génn si waaye de bu ñuy waaye de nañ fexe ñi yeewu ñàkk suñu dëkk bi ndax ñu am dara lu Sénégal waaye damay wax ne nag képp koo xam ne daal yaa ngi ci réew mii. Mm. na nga daw uti kaaraange képp ku amul kaaraange mm. man tiit naa ndax fi ñu jëm nii mm. képp ku amul kaaraange dëgg dëgg ñaanal yàlla nga fekkee ko ëllëg te ñu ngi ciy liggéey loo xam ne si kàttu yàlla danañ si dimbale nit ñi ndax Sénégal moo ñor. waaye képp koo xam ne bëgg nga kaaraange boo ñu ooyee si kàttanu yàlla dama lay wax na la boo toogoon fi ñuy dóoree ay bal danga nga mucc si bal yooyu. jërëjëf Aja dégg ngeen ko ci biir kàddoom ba fi ñu jëm dina ko leeral ci biir euh, nga xam ne dinañ yaatal euh, le 16 bi nga xam ne ci lañ convoqué président Ousmane Sonko mu di marche bi Aja dama ñëw ci ubbeeku bu yéeme bi nga xam ne ñàkk ko mos daal wóorut ñu ñëw ci ubbeeku bi. alhamdulilah rabbil alamin loolu dañuy santaa yàlla beneen yoon. Hmm. di wax ne wàllu ubbeeku. mbir la moo xam ne nit ñaa ngi ci sonn waxtu bu nekk jaaxal na ñëpp ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ci àll bi yàgg fa lool te mënuñ am dara am ñoo xam ne ci biir réew mi nekk góor lool mënuñ am dara kon loolu yëpp lu ko waral mooy ubbeeku tën leen ngay dégg ñu ne dafa yomb yombut buñ yombal mbir mi ubbeeku ku ku bëgg ubbeeku da fexe nga xool lan moo nekk sa gannaaw pare hmm. li nekk sa gannaaw fekk dañut pour nga ubbeeku yomb am na koo xam ne dana daw ba bëgg a dee du am dara wallaay li nga li ko def gis nga niw niw bay tëdd si armeel yi fekk jugut li ko def waaye yu dootu am dara waaw niw bu jug mooy gën a yomb waaj am dara am na koo xam ne góor lool góor mënu ko wallahi waaye dañaa tëj wësagum bi lum yaakaar mu të am na koo xam ne day daw ba bëgg a dee di am waaye lu am du taxaw si loxoom waaye damay wax ne ci nit ku bëgg ubbeeku alal fekkee ne alal moom mu bëgg wala loo am sa loxo loo am sa loxo du ñëw ci kàttanu yàlla suñ ci jëflanteeg yow fekkee alal nga. kon damay wax ne wàllu ubbeeku lépp lu si waaye soxla ci fekkee ne nit koo xam ne loo am mu dem boo ñëwee ma toogloo ko su fekkee nit koo xam ne loo loo jug loo yaakaar mu tas si kàttanu yàlla bi ñu jokkoo yow loo yaakaar mu ñëw. su fekkee nit koo xam ne wërsëg daf ko tër a tëj wërsëgam bi hmm. si kàttu yàlla su soo moo jotee ma liggéey ak yow incha allah rabbi dama la wax ne la ñàkk moom dama koy tàgg yow ba jeex hmm. dama la wax ne mbir mi boo ko mënee méttiwut hmm. su métier mooy ku ko mënut. mbir mi doo ko mënee méttiwut mu di kàddu yoo xam ne Serigne Babacar Marabu Socé da koy baamtu saa su nekk ci émission kon loolu lu mat bàyyi xel la jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu. atia euh, ci ñu jeexale ci xew-xew jamono mu di actualité nga ne lan nga gis ci convocation bi nga xam ne euh, le 16 mars bi di ñëw président Ousmane Sonko war naa wuy ji ñu dégluwaat ko loo ci gis. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. Euh, di wax rek xubbul watani meneen imaan bëgg sa réew si gëm yàlla la bokk kon yaakaar naa ne su fekkee ne am na lañ doon suñu réew wala ñu bëgg suñu réew hmm. nañ leen fexe ñàkk réew mi Ousmane taxawaayam ci senegal ñëpp yaakaar nañ ko ëllëg ndollal ñëpp bëgg nañ ko waaye damay wax ne fu mu tànkam tegu hmm. su góorgóorlu wut wax naa ko fi dama koy ñaanal yàlla yàlla na fekkee loolu waaye su Ousmane muccee si yi jëm nii mën naa doon lu nekk xam nga réew mi nag li ko yàq mooy nit ñi dañuy jaay nit. nga wax de luy xew. lay wax ne yaa fi nekk te fekk nekkoo fi yaa fi mën fekk mënoo fi waaw ndax li ko waral mooy ne ñu si ci kawam lim yaakaar li ñëpp yaakaar si moom day yomb du yomb ñu ko bëgg nag xam nga dana bëgg dañuy bëgg ni si wax rek. ba ba léegi yëpp daa dëgër moom gisu dara yomb fi. waaye damay wax na Cheikh. Hmm. yal na yàlla ñàkk Sénégal. waaye Sénégal mu si yoon boo xam ne. Hmm. suñu yàlla dimbaluwut gàcc dana am. Hmm. te gàcc dana am. ndax li fi xew. yu garaaw la. kon Ousmane ñu ngi koy wax na ko képp koo xam ne bëgg na ko. na fexe mu defar gannaaw. waaye le 16 biñ jëm. damay wax na képp koo xam ne yaa ngi ci réew mii hmm. bés boobu na nga ut fukki sa ndox ak ñaar hmm. ak ñetti poti gerte ñu saraxe ko pour yàlla muccal bés boobu. Hmm. wa ci gis sëñ bi. am na am na yu ma gis dama bëgg réew mi ñu mucc dama bëgg ñu mi ñu mucc te may wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw réew bopp réew mi nañ fexe ñagal ñu suñu réew mi. waaye du ko tëj keroog daal. waaw loolu moom alhamdulilah am na yu ñu ci gis yoo xam ne si kàttuñu yàlla suñ ko defee bës boobu dana uyu ji waaye dana ñibbaat. waaw su waaw su ko defut rek ñun moom wallaahu ahlam waaw yàlla rek xam. jërëjëf ñu tàggatoo. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi am mbégte bu baax di gërëm àdduna yëpp di gërëmaat kilifa diine yi. Mm-hmm. di gërëmaat Sénégal di gërëm ñu si biir réew mi di gërëm ñu si bitim réew. ñi nga xam ne waxtu bu nekk ñu ngi ñu ngi sonn suñ mbir ñu ngi leen di ñaanal yàlla nga xam ne suñ ay mbokk ñu si réew mi bitim réew di daw di sonn waxtu bu nekk ñu ngi leen ñaanal yàlla ñoom ñëpp yal na yàlla dimbal leen di tax ñu génn ba uti loolu yëpp na yàlla jox seen càkkuteef yëpp yàlla na yàlla teg senegal si yoonu yoon bi nga xam ne mooy yoonu siraatul mustaqiim yooni bàyyi ak yooni maam yi nga xam ne Sénégal réewu taraanga lay doon ba yoomal xiyaama ñu ngi wax ne Sénégal réewu taraanga lay doon ñu ngi gërëm site bi nga xam ne mooy deux cent et un people di leen ñaan yàlla seen site bi yàlla na yëkkati ko li ngeen bëgg xam nañ ne liggéeyal Sénégal rek moo loo ñor ndax seen itte yëpp loolu la waxtu bu nekk rek yéen a ngi xencu di xool ba xam jaamu yàlla yi seen aaj yaa ngi faju wala faju te loolu mos ëpp solo heure bu nekk rek yéen a ngi oo di laaj ba xam doomu aadama yi seen mbir yaa ngi faju te loolu rek ngeen ci seen seen si benn alal kon yéen tamit yàlla def bay leen ndax yéen ngi bokk si ñi nga xam ne yéen a ngi liggéeyal seen réew te loolu rek moom la Sénégal soxla ndaw yi nga xam ne dañuy defar dañuy tabax senegal te yàlla yàlla tabax senegal si yoon bi nga xam ne mooy yoonu siraat mustaqim yàlla dimbale ñu ñàkk senegal ñàkk ñi dëkkee senegal ñàkk ay doomu Sénégal wasalaamaaleykum wa rahmatullah